mbokki daara ji dellusiwaat nañ ci daara ji e lettre boo xamante ni bu am e, solo la ci ñu doy xol yi ak bëggeel duy cër yi taxaw temm ci sanaan yi moo ndeku tëre yi ah léegi nag ba muy daan de moom mu ne la moo ndekul gàllankoor yi di am ci nit mu gàllankoor la ba li la taxoon jox ci kër baay loolu dafa mooy li wax addu kal am na de loolu ci la doon wax démb su ko defee boo defee loolu boo fekkente ni sàggan nga ba agresseur agresseur agressé la wa tabqa anta maa xasalta ala muraadika foofu laa taxawoon nga taxaw nag la nga namoon dox ak yokku kon nag loolu lañ bañ wal alam na nga xam yow ana duniyaa naka àddina bi la sa tun benn gendeeku la gendeeku la waaye detun min wujudi ci am gi xam gi duniyaa benn eh, distance la ci Euh, wujud naa ñun suñ am ni moom itam juz'un la min tilka lahsat suñu am ni ñu itam kenn ku ne am ndigganti espace soo ci am àddina benn espace dong la ñun ne kenn ku ci ne dafa am ndigganti soo ci am fi nga juddoo fi ngay dee loolu kenn ku ci ne moom laa mit ko wal ah dégg nga euh, wal aaxiratu aaxiratu nag suñ ci demee abadiyatun la dafa dapetu baqiyatun dafa des moom alaaxira moom amam nga ama continuité la dafa sax dafa sax des ah, wa baqaauha moom itam desam nga moom alaaxira gis uñ pa xaaj la min baqaay wujjóot laay xam ak laa wax moom xam ak àllaaxira benn pàcc pàcc la taala kon nag lépp loo gis benn pàcc xam na fu mu yem léegi nag gaa yi yàlla ñoom dañuy xam ne kon nag ñaari pàcc yooyu mooy dunya ak aaxira gannaaw ay xaaj lañ ay pàcc lañ dañuy ut loo xamante ni amul pàcc waman kaar ku nekk li laay ñàllaaw yu ci dana ko doy lasata wujjoodika wujjoodihi gendee ko ama yàlla kama lawloo bi kuliyati baqaayi wujjoodihi na nga xamee ne kon nag boo amee nag ca yàlla boo amee yàlla gendee ko nga am ci yàlla moom day continuer moo tax du jeex na yàlla desee loo ca am am googu am ak continuer moo tax yow il faut que ñoom nit yàlla yi dañuy xam ne tant que ñu fay def bàyyi seen espace bii dañuy tàdd lañ bëgg duñ ko am moo tax ñu gaaw dàq seen am gii balaa ñoo dem ñu ja loolu ma jàggi siraat sa am gii da nga koy dàq pour mën a jàggi siraat nag dem ci des am goo xamante ni du jeexati mooy amat laaxu rek moo fay def ah kon nag bi kuliti bàqaay wu jóot yi taala kon nag e, wamin waman jadda e, waman wajada kon ko am mi at mil e, miata alfi milliard ku amoon téeméeri junney milliard kilo mina saabi ci kilo or téeméeri junney milliard ci kilo or tubaaxoo mu ko jaay nag bi asri asri dirham ci fukki fukki dërëm safiwoon dafa dof ndaxte mi ngi lay ja war ne dund bi yàlla bi dund goo xam ne moom du jeexati mukk dund ak àdduna bi as saas as ndit la sa dund ngi fay dund as ndit la léegi nag nga jël nag amoon tey téeméeri junne milliard ci kilo or nga jaay ko ci ay fukki dërëm dangaa dof te mooy lan nit koo xam dafa jaay dund àddinaam bi ku jël ci dund àddina sacrifié ko ba ñàkk dund àllaaxira bale mooy ku mel nag xam nga am nga téeméeri junne euh, yi milliards kilo yi nga jaay ko ci ay fukki dërëm cey <laughs> ndax loolu am na dëgg-dëgg am na bénéfice déedéet compte tuur ndax is ndax di nga inlam yestariha bu ko ja bu ko jëndul maali elmi ànd ak xam bi baqaayi samani tëdd sa njëkk wa baqaawu samani dësa njëkk waa ak mas kon ah bu fekkee ne jënd ko xam njëggaak borom njëgga day des kon nag loolu boo ko boo ko jaay ci loolu xam ne ki ma ko jaay nii de dama ko jaay koo xamante ni moom du fi jóg xam nga léegi boo jëlee sa bopp jox ko yàlla yow jox nga ko jaay ko koo xamante ni moom du fi jóg moo tax ma ne in lam yastariha mal ilmi ba baqaayi samani wa baqaayil masmun kon nag fàttanaa fu xaccoo li ma xaccoo mooy jiiroo fi batil minahi ñu ngi nekk ca ba ñuy joxe eh, li wax kado yi nañ giiroo bu yàlla joxe kado mooy neexal yi xam nga bu ñuy eh, defal lépp ay li wax eh, bu ñuy defal ay concours ak yépp ngalawaay ñun nañ xëccoo fa ñuy joxe nga xamante ne mooy may ya batil minahi Euh, wal awaalu ak alal yi nañ ko def bi lay filaay ci yàlla taala suñ alal yi buñ koy def ci nañ ko def ci laaw taala foo kullu xaqilin képp kuñ ne am na xel al yawma fii ci àdduna yàquwul ma nga naan law kuntu ma nekkoon fi sama rasulaay jamono rasulaay salaa salaam tey loolu kat nit ñaa ngi wax tey man boo fekkoon yonent bi mu ne borom xel yëpp ñu ngi naan su ma fekkoon jamono yonent bi salaa salaam la faaltu dinaa def kasaa wa kasaa dinaa def nangam li Babacar def naa ko def <laughs> dangay wax rek ah waaw <laughs> ah yow yaa gën a yaa ngi toog fii te dana yonent bi dem fenn ñëpp naan su ma ko fekkoon tey dinaa def nangam nangam nangam wakkunta nga nekk nag fi semaine Cheikh Tidiane yi wala bokk aw kuntu bu ma nekkoon aywa <laughs> aw kuntu waaw jërëjëf jërëjëf waaw kay wala mu ne xëy su ma fekkoon jamono Cheikh Tidiane cey misiri misiri mu foor aw kuntu woo boo nekkoon fi samani Cheikh Tidiane la faal daa def ay dan bi tey kasaa kasaa xëy su ma fekkoon jamono Cheikh kon daa def nangam ah, mu ne lakin waaye in faata bu faatee asamaanu samaan samaan bu la rëccee fa laaw laaw ba mu fi def maa faat dem fenn samaan jamono samaan samano yont bi dem na samano Cheikh Jaan dem na ndax yàlla dem na moo tax Babacar ba nga xamante ni yont bi ne na gaa yi bëgg caalit mu jóg moom jóg ne ku doon jaamu Muhammad Muhammad day dee na moom ku jaamu yàlla na yàlla mi ngi fi des moom du dee mukk mhm. kon nag misir moom lii xam nga lii mooy waral mhm. kon nag moo bul toppatoo jamono jamono sàngam daal moom nangam déet falaaw baqin maa faata waqat xasanaa euh, jagle bi haasil xalifati mhm. bàyyi bàyyi la zikri yàllaa njëgale xalifa bii nii mooy Cheikh Ibrahima faman wajadahu ku am xalifa bii maa faqada sa en ñàkku dara xalifa baa ngi nii loola fa am na son loo fekkoon son fekk fekk yonent bi su ma fekkoon Cheikh Tidiane yàlla jagale ñu waa ji xoono jëduhoo maa faqada sa kon nag lii nii laa bëgg ngeen dégg ah wansur kulla man képp koo xamante si nii na moytu ne ko képp koo xam ne mi ngi tabax yéen ñu nga tabax ah wa baynahoo ah yëg nii la de ah wansur kulla man yëg nii wa baynahoo nisbatun fekk na am na loo xamante ni mam moom loolu la mën a àndal law qulta boo xoon min ay min ay yejal yejal dafay def bàyyi na ko digganteem ijaabun ko ijaaban kiiraay maa cheikh ànd cheikh su waxoon ne tey lu lay wax ah fa ana man dey misri laa xaajat dil ajiri ñen ma fii mufrati ci ku sàggan yadru koy lor na sob ko man de amul soxla ku xam ne dafa sàggan bëgg a jël diggale bàyyi laa bokkorog lile maa ngi mot na ku nga jël leneen loo xamante ni moom nga wanoon àndat ndax kenn ku ne sa jamono ngay àndat naa Cheikh nee na àndandoo koy dund wali wu dund moo la ma a mën jëriñ mm-hmm. waaye wali dee du la jëriñ tey yónent ba wilaay ga xilaaf ba tey boo bëggoon jàng foo jànge moom ngay jànge ne coono rek dem de te kat lii la fi nit ñi dëkkee seytaane buñ dikkee nga xam ne tey fii nit ñi mën a di jëriñoo ci diine ji ne du kii day toog nag ba ñi nag doog a rëccu ay son ay suma ko fekkoon ay jamono yu ay jamonoy bàyyi xam nga léegi àgg <laughs> waaye ku fekkoon ne su fekkoon jamono bàyyi tey nga toog fekk fi firee li bàyyi nekkee woon nga bañ cee jëriñu soo fekkoon bàyyi doo ci jëriñ ndaxte leen lim ne yëpp ngi nii man ne misiri koo xam ne jël nga diggante loolu fa ana la hajat lii fi muratin ci ko sàggan koo xamante ni yóddu dafay lor na sa boppam wala yéen foo ne te duma jëriñ kuy lor boppam te duma jëriñ man misiri aw ma sax kon nag Euh, fal basiratu gis xol bii kal dafa mel ne gis-gisu bët bii ah maxtaar gis-gis bii lumière bii comme bii la isaa waqan bu dalee fii ci gis-gis say ndar ah, walaw xala même lu tut la bu doon cabax sa bët bi laa yaraa du gisati asam si jant bi fatt sa bët bii bu fattoo da nga gisati ba tëb xolit bu fattoo du gis fa Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane yàqul daa xanaan yàqul daa nax ne man yaarifu ni ku ma xam yaarifu ni dafay xam war yi man dong la ilaha illallah xool fi misri génne tey <laughs> xam nga léegi xaal yu mi ah eh, ak boroom cére bii ñoom ñaari borom téere yi misir yi dañoo nekkoon ay ngand ba seen taalib yi daan wax ne suñ ma muqaddam gannaaw cheikh suñ muqaddam bi ñi ne gannaaw cheikh Mouhamed Arasimi gannaaw cheikh Maodo misir yi cheikh oo leen ñoom ñaar ak seen taalib ne kaay leen ni leen nag man yaari fu yaari fu ñuy wax ji fii ku fi xam doo fi xam ñaari góor léegi nag waaye yow boo xamee fële ne Cheikh Tidiane ak Cheikh Baye ñaat ñaat ndax ñaat ñaata ñaata ñu indi déedéet ku xam kenn nga fi xam waaye soo ak Cheikh Cheikh Tidiane Haydara du sotti man yaarifu ni yaarifu ni wax di ah kon nag lii <laughs> ah la ilaha illallah ah kon nag woo waatir woo li nga xam ne mooy wittar ba xam nga li leen ñaar dañ dikkoon ñaar dañ taxawal ñu ne membre misri ak ali muy safa mu ne woo waatiroo ki nga xam ne mooy witrab witrab witrab Cheikh Tidiane min baa bi awlaa moo moom moo gën a rawatina kon moo nekk kenn ki gannaaw ñaar ñële daf leen dàq wéetaram ba moo gën a moo gën a yelati ko nag moo ñu ñu ñu saxal ko fi na nga gëmoon kenn ka nekk safa boo dikkee wéta ndax Cheikh Tidiane dafa taxaw taxawaay safa kon nag na nga gëmoon safa na nga gën a wéetal moo tax toujours foo ko waxee rek sëli alaman is sëli àll is ni rem si fi kulli kooku nag yaakaar ne moom lépp lu ñaar ñaar rek moom la gannaaw gëmee nga ko ci fële war ngaa wéetal ba moo ci rawat kon nag E, lii laa min baabi awla woy na ma kuntu nekkoo man andooma ba de wutu na coom ni yaabatan uutu nit biyatan man misri dama koy uutu uutab askanale rek nag xam nga uutab askanale mooy uutu boo xam ne dañu caa tudd ci amu fi lii laa bëggoon nit ñi xam nag li misri wax nii koo ne yow yaay xalifaab yaay xalifaab diw xuutoom nisba waaye amu fi loolu tax ba nga demee ci xaqaayiqi xaqaayiqi xuutu ngay xuutu xaq bi xuutoom nisba la wax fi ba nga diggee ci nisa bi xuutu ngay xuutu xuutu nisba la waaye amu fi kon nag biñ dikkee mu ne man nag man bu ma nekkee wa inama kuntu anoobu xanuwoo ni yaabata nit biyatan ni fi askane doo nga la saroo gii ñu askane la ak si tur bi ak si kii yow ndax gis nga leen man kon buñ ne maa ngi koy utu di ci wax man dama ko utu nit biyatan fil fas li ci teqale ma anan ci maanaa woo sooratan bu ma dikkee pour teqalee maanaa bi ak foto ba loolu moom laa ci dikk pour de ko leeral waxaa yëgal antum yéen yéen sama gaa yi wasaltum ak si ngeen ilay ci moom bàyyi ak si ngeen ca ma anan woo sóoratan ñële dañ daan ak si maanaa rek waaye yéen yéen ak si maanaa ba ak sóora bi mu ngi nii yéen ci agsi wa in lam yakun même mu nekkut lakk la sam on sondeel tësët bi booy leerlu fii ci moom soo amul sondeel boo taal ah boo xam ne mën nga ci leeru kon nag fas ay na nga fay ah façon awusam si ah, léegi jéene jant bi feeñ yow soo fi nekkoon nga am sondeel buy leer ba jant bi ne tëll ndax sa sondeel bi na jëriñit kon nag loolu la la bëgg wax soo fi nekkoon di wax man a man a ba bàyyi ni bàyyi bàyyi tëll kon nag mel ne ko amoon sondeel la jant bi ne tëll fat fayee fat faaw sam si xasaara feeñ na jenn jant bi feeñ na kon nag falhamdulillah xënd laaw comme ala saari teg lii jant bi mu feeñal xam nga boo seetee aada eh, Ibrahima bañ ko yoon ma la ko tawaat kon mooy biddiw weer jant mooy mujj biñ dikkee fii ci ëtt bi ëtt bii nu bóot wilaayat du ca tege soo xamoon nag lële lële lële wane rek la kon kon nag nañ sant yàlla ala saalik ah kon nag waatoohu na ngeen ko jox moom mii maa sa taxtum nu ngeen mën xàqoo ci xàqam la ko la leen war ca moom nu ngeen ca man e, def leen ko fa man faatoo koo xam ne rëcc na ko ak Cheikh Cheikh Ibrahima um rëcc lami léegi jot say an dara perdaan laa ilaha illallah wax dëgg de ku Cheikh bàyyi Cheikh Ibrahim rëcc ah ñàkk nga loolu fa man faatoo ak Cheikh la muy direk say an ah, waxu naa nekk na foofa al am naaw doom yi ah, wal iqwa ak mbokk yi wal muhibatu ak soppee wal mu alafatu ak miinu lii lépp am na nag doom doom am na fi mbokk am na fi sopp am na fi déggoo am na fi lay bàyyi naa suñu diggante moom loolu am na suñu diggante ak moom nag bal yësidu naa daf ñuy dolli rek fil jamee ci yépp kon nag loolu yépp dañuy gën a croissant ci moom rek boo nekkoon xam nga yow boo yëgee boo yëgut yaa ngi ci xadratu jami boo dikkee na xadratu jami ñu koy askane ci yow doom ak moom doom wala mbokk wala nanga loolu daf laa yokkal yéesidu naa fil jami kon nag euh, fa aqrabakum ci gën a jege ci li cheikh euh, wa te ci gën a foor mahabatan mbëggeel fii ci moom moom wa maarifatan ak xam ci gën a jige bàyyi ak ci gën a foor mbëggeel ak maarifa ci moom ah, lahoo am na xaasa ah, huwa moom xubbukum eh, xibbukum mooy seen soppe ah, lii lii ku ko am ñett yii nga jege baay gën koo foor gën a koo foor mbëggeel ak marifa kon nag lii day moom moo ku la gën a lii xoomu ahabukum mooy ko ëpp mbëggeel ilaa waa firin bikkum la gën a mat cër ki gën a mat cër mooy ci gën a am li ci bàyyi nit ci man ci man ku la gën a jige bàyyi ku la gën a tar na nga ko bëggee ku la ko gën a xam ci xaqiqatan kook mooy këgg ga ëpp mbëggeel te moo ëpp cër ñëpp mi ci man wax waxala moo xam leen ana madaara kàllaami yi naka tourné kaay waxam moom bàyyi xaalaa muridina ci nga xamante ni mooy tàlle yi sàkkarawmat leen annaasiru e, kuy gis bàyyi na xam ne ay jaar-jaaram e, ci taalibe yi ku am gis wax na ko naatiru kon nag wal bàtt ak bàtt fil nii soo bëgg a gis ci biti nii la soo ko bëgg a gis ca bàtt bàtt nga ko gisee bàtt soo ko bëgg a gis ci bàtt da nga xam fa bàtt de bàtt loo nga gis fal bàtt bi fil bàtt ah, wasar fu booy tourné biti nag fi saay nga tourné ko ci biti fal baat nu boo koy biir moom lil xaqiqati càq nga koy xoole boo bëggee xam bàyyi ci biir ci baat ci xaqiqa nga koy xamee wasaayir boo ko xam ci biti li sariyaat ci sariya nga ko xamee ah kon ku la gën a mat ci sariya rek moo la gën a xam bàyyi ndax moom moo ñëw bu deen jëmmi sharia sharia bu doon jëmm moom moo jëmmal sharia kon ku ko bëgg xam ci baatin ci xàq xam nga ko xamee koo bëgg a xam ci biti sharia aruhu ruhu wal jismu ak yaram masalan misaal wa bay na maa nekk seen diggante barsaqun ab diggale roobu nit ki ak yaram bi dafa am benn intermédiaire bu yar sa diggante ah moom lil xal bi xol nag moo nekk de moo jaar diggante roobu bi ak yaram bi boobaa nag loo am na saay ruwoo saayiram yu laa yu boo ne mën naa ànd ak saayir biti moom xol am na biti boo xam ne dafa mën a ànd ak biti wa baatin am na biir boo xamante ni yu laa yu mën naa ànd ak albaatinu biti ceey waay ceey waay ceey kon nag euh, laa tab nisbatan ala nisbatin bul sàkkee bul sàkkoo ci nisba beneen nisba nis ba mën laa caamee nis ba soo bëggoon jot ci ruuxu nga ne maa ngi dem ci xel pour jot ci ruuxu loolu la wax na kon nag laa nag laa tabtubul sàkku nisbatan ala nisbati xam nga foo demee saayir mi ngay dem koo soxla ci ñoom nisba yi siru ah jaar ci yaram ñoom ak ci mbokkam yépp kon nag lii laa yooti dina jox ku la si xàqin bépp borom cër xàq walam laaj borom biti boo dikkee yow borom cër biti dana la jox la cër biti laaj soo demee ci cër biir mooy xàq mu jox la cër biir laaj wali asal maanaa bii maanaa saara la mujj nag lu ban di lubb lubb mooy kembu gerte bi ngooñ ga ak xott ga baax nañ lool ndax ba amu doon waaye nag kemb nag bañ amee ñoom ñaar bu fekk na kemb amul ci biir mbay ma lépp lu ma jëri kon nag billaay billaay billaay man mën naa na kon nag wala xaasal maanaa saar lu ban moo tax bàyyi na ko falaa yëg ku kësul dinaa sama yi binaa nga la yàlla xoolitu dina bu mu nekk ci cëri suñu bëggee ci yow bali lubbu lubbu lubbi lubbu bi ak dafa ànd bu ci biir maanaam kemb bi dafay ànd ak jiw kon nag loolu lañ bëgg kii nag saarul ban fa man araada ku nam an yàqu nekk lu ban su bëggee nekk lubbu fal yàqu na nekk min uulil albaabi ci borom xel ya soo bëggee am lu bu ndaxte euh, albaab boo gisee araab dafa doy waar di nga euh, xel dañ ko tuddee xàqlu ndax dafay mémoriser xel dañ ko tuddee nuxaa ndax daf lay aaye xol dañ ko xel dañ ko tuddee hijaar ndax daf lay layal waaye xal dañ ko wax euh, lubb wa maa yazakkaru ulul albaab ndax jëmm ji yëpp ba xel dikkee ba ci xol moom mooy lubb lubb bi kon nag yow boo dikkee ñu boole ci ulul albaab dangay dem toppatoo ji nga xamante ni mooy lubb boo bëggee lubb yéen ulul albaab dangay dem toppatoo lubb fa man araada an yakun lu ban fal yakun min ulul albaab almutasifina ñaa xam ne ñoo meloo bi sifaat lubbi waxuma nag intellectuel boo xamante ni dafa ne man am dama am xel intellectuel saa saay saay bii wax waxu de demal ci borom xel yi nga xam ne ñoo am melokaan lubb almutasifina bi sifaat yi lubbi ah, kon euh, lii laa fii ah, su ko defee tuutoo dañ leen jox kulla si àqin bopp borom cër walla walam laaj fi laqaay kii dégg nga ci euh, dañ la jox sa cër soo bokkee ci urul albaab te moo ñu xam ne kii mooy lu mooy si xilaaf bi nga bokk ci urul albaab bi ki jël si jël si cër jël si cër ci moom yootoo si àqin àqoo képp ku borom cër yaa xam sa nga jaaree ñu jox la cërëb sariya ba yaa xam xaq nga jaaree moo tax fii ne daf ñuy fàttali boo demee ci suratul rahman wa janal janatayni daanin ñaari meññeeti ajana yi mm-hmm. foo bi ay alaay rabbikuma tukazzibaan mm-hmm. ana ban ci xéwal seen borom mm-hmm. mooy xéwal bële nga xamante ni mooy sariya ba ak xéwal ba nga xam mooy borom xàq ba ki nga xam ne moo leen boolante nga dikk fii ban nga ci war a weddi gëm sariya weddi xàq gëm xàq weddi sariya boo ci war a weddi kon nag lii nii daf ñuy ubbi buntam ñu xam loola kon ah nañ xam kenn ku nekk boo amee lubb ba ñëw ci sa bopp jëfandikoo sa lubb ci ki nga xam ne mooy lubb lubaab bi ndax naa ci dañ ko bàyyi lubb lubaab boobaa ci nga mën a jëlee si kër na yu utoo kulla si àqin àqoo far xaqaayi ko dëgg-dëgg ya ay dëgg ay dëggam ya al arbaatu yi ñeent li kuliwaay dati ñel na képp kenn mënul ci am xaasiyatu njagle billaahi lii wax naa ko bëgg a dee ñeenti xaqiqa yi kenn ku ne dafa am loo xam ne yow spécial yow danga ko jago léegi nag yow pour nga mat xaqiqa bu ne da ngay dikk jox ko laaj ahadiya taa indi la yàlla wéetaay sa taw sa taw yàqu na wéetaay kon wéetal wéetal taa indi wéetal yàlla rek yàqu yaa xam yaa ngi dox yaa xaay xunu boobu foo mën a jaar rek yàlla moom bul ko indi wéetal loolu rek moom moom aadiyam la du ca jóg mukk ah, melokaan jikko jot sifa set rek la nekkee set goo xam ne takkul dara dara dara dara taa yoo bëgg a jëriñoo ci allahu takk doo ci bokk laa sarika ah boo dikkee ci nga xamante ni mooy saayiru mooy ki nga xamante ni mooy turo soo bëggee jàmm moom moom ndongo mooy saayiru dàqal sa saayiru aluma an saayiru fa lay si fokk ka ndax la na beneen saa yi ci kaw saayiram bi kon nag bul manifester loolu la bañ moom bëggul manifester moom kenn ke ke kenn ndax ndax lii ko amut maarifu bu wér maarifu bu sax man nga ko man nga ah? léegi nag ah, naftu bii ñaari naftu fa dir dafa dikk bi nga xam ne naftu la amaaratu bi soo bakkan bi nga xam ne day santaanu bor boobu moom boo ko toppee mu yàqale naftu naftu da nga koy éliminer ki nga ni mooy ruux bi jirim bi mooy koo xamante ni wa ma ataakum rasul faqtu wa ma nahaakum anhu kon jëfandikoo rasul xaq bi li indi moom ngay jëfandikoo ci nafsu bii santaane boo jëfandikoo bu dul santaane bi sa liggéey nafsu yàlla loolu nag man naa lañ ko tënkal noonu rek man naa mu nekkaat yeneen bu ko xoolee waaye xaqaay ni la nekkee falaa xayiqu alal batli kulli wahidatin uh, minhunna xaasiyatun wa samratun xam na it meññet meññet xam nga meññet bale tawit la la fi la la kii tawit la la meññal bale lu la meññal set bale lu la meññal nangu nangu ne kenn rek bale lu la nangul la lu lu lu la meññal mooy dellu dellu rek waaw kon nag fallaahu laaw koomu al awalu mooy awalu mooy njëkk gi moo tax doo wax ne moo fi njëkk ni ma koy firee nii ñoo saa moom laahu mooy awalu wal aaxiru mooy aaxiru gi ban àqru fam àqroo mooy àqru nit ñi dem naan yàlla awloo yàlla àqru yooyu day xam ne kon nañ xam ne loolu njuumte bu réy réy déedéet laaw mooy awalu mooy àqru wol baat mooy biiri di wasaayir kon mooy biti di biti ñaari bi ci amul alamaan saayir moo tax yontu kan moo ko firi alamaan tal awal fa lay sa xabla ko sa matal àqru fa lay sa barak sa man saayir fa lay sa ko sa man baat fa lay sa duna ka yonent moo ko firi kon waaw nit ñi duñ gëm firi firi yonent bi boo dee yow nit ak sunna nga yonent bi wax yàlla wax na yonent bi wax na doo topp kon seen wax déedéet waaye nit ñi daal bañ dikkee ba ci kër gi nga xam ne mooy kër ak matee ga topp ñu yoon ku mat ka nag waxee na bàyyi waxee rek toppal noonu booy teggi ci tànk gënoo neex xel bàyyi da ngay daanu de gënoo ko rafet xel su waxee rek noonu la moo tax boo demee ñaan wasufa wi dañ koy boole lii dañ ko ciy boole pour nga def nga mën a delloo bagage yi toujours ba nga wasufa ba pare moom moomu ci wir day ngoon yi nga delloo bagage yi wala hoo moom moom moom moom alkamaalu mat al mutlaq boo xamante ni ko boyal mat gu mat sëkk min kulli wëccin bépp bu kot bépp côté boo dem def ci amat moo xam awalan wa aaxiran wa saahir bàttin kii moo xam wa kullu ismin bépp tur min haasil asmaa tur yi laa yumkinu du jàppandi al istixnaa nga doy loo xam ne ci moom mënut a jàppandi nga bàyyi nga ñàkk ci soxla li aadan kenn mënut a ñàkk tur yii mënoo ñàkk nga soxla ko yaa tur awalu aaxiru saaybat ci tur ay tur lañ amul ku ko soxla nga aarin kenn fa awaliyatul insaani nit awaloon nga xam nga léegi mi ngi lay wàcce awaliyatul insaan tuqaabilu dafa doon dafa dafa dafa tollal al awaliyatu al awalu awalu ëwalum nit dafa toll ak ëwalum bi ëwalum làngu wal aaxiratu tuqaabilu dafa tolloog al aaxiru aaxiru yow wa saayiratu saayirum nit tuqaabilu dafa dëkkat ak saayiru saayiru wal baatinatu baatinam nit tuqaabilu dafa tolloog al baatu baatu kon nag fa innamal jaatu ne ko côté euh, lii euh, lii euh, lu ci nekkee lu ci tege ne fa innamal jaatu al al isnaani bi maanaam al intimaaw xam nga mu ko wax noonu lu ci yàq lu ci des al arba ha ñeent la seetlu sa ko foofu kon côté ñeenti ñeent côté la yow kanam gannaaw droite gauche kon nag loolu la wax nag kon fal lim jaar ci diggante laa xam arbaatun arboon ñeent la yaati dana ñëw jëmeoo arsaaqi mbooleem warsagu nit minaa bàyyi ko ci ñeenti côté yooyu kon nag lii nii gannaaw nit fu ne ñeenti côté yi am warta ko jikkee fal yurit na taataan awaani jihaat yi ndax yaakaar ne mooy ndawi côté bi almaali at li kulli mutaari minal góori wal awaan nday na ndab loo koy taataanal kanam am na day ndabam càmmooy am na ndabam kanam am na ndabam ndab yooyu nag foo koy seet demal seet ku ca ndab yi nga mooy ndab yi xaqaayiq nañ taxawee yow ci kooku ngay taataan ci aar yeba lii ka ndab li laa koy taataan Muhammadiya ndab li laa fay taataan Amadiya ndab li laa fay taataan xilaaf bi lii lan la fay taataan kon ni nga gisee sa ñeenti côté yii lay wan kon nag côté bu ne am na lu ko fa dikkee yaati jamal arsaaqi minha kon nag fal yoorit awaani jihaat yi al arba ya xam la kon nag yow mii sa siru bii sa ruux bii sa xel mii sa xol bii di ko taataane ñeent yi nga xam ne fa la ko war a taataane xam nga siru la mu war a ànd mooy aadi xam nga ruuxu fu koy taataanee mooy muhammad xam nga xel mooy wala yaram fu ñu koy taataanee mooy ahmad xam nga xol fu ñu koy taataane lii nag sa ñeenti sa ñeenti côté yi wër la daf lay wan ñeent yi ci yow rek sooy waayu ñu lii li kulli jihatin ah mu ne lii côté bu ne am naa risque lu war sa xaasun boo xam ne côté bu ne am na war boo xam ne moom moom kenn na ko jógee mu rek ko jógoon laa yamiluhoo du ko yenu xayruhaa lu côté boobu côté bu ne am na loo xam ne moom moo ko war a jël firu la muy jël ci aadiya amul koo mën a jël nii su ma la jël indilee benn rek indi laa lay ci def yëpp kenn ku ne dafa am boo xam ne yaa ko jogal ah risqun xaasun biha laa yemiloo xayruha kon fa minha nekk na ca alxurufu araf yaa al arba yi ñeent li kol arfi ñel na bépp xaraf mi naa jagle haraf ya xam nag yan haraf xam naa arafu laaw xanaa ñeenti haraf la dégg maxtaar dégg nga kay wax le xol bu baax a baax ah kenn ku ne li kulli arfi mina xaasiyatun al ma ima benn al al lafsan mën naa nekk lafsan ci baat mu jagoo baat ba wa suuratan wala foto aw maanan wala maanaam aw saklan mboolem koo gis ca baat yi am na baat boo xam ne moom la jagoo wala foto boo xam ne moom la jagoo wala maanaam boo xam ne moom la jagoo wala forme boo xamante ni moom la jagoo xam nga gis nga gis nga bi ñuy bindee abajadem ñaar fukki araf yi ak Euh, juróom-ñett kenn ku nekk am taxawin bindam kenn bokkut ak moom alif bokkut ak laam laam dafa dëkk guddi ci suuf nii lañ nekkee nag mu ne kenn ku nag ah dañ di ko bañ nag ñu uti ci lëtt bi walla ci photo bi wala ci maanaam bi wala nu format anakoo lëf suñu waaye benn baat ba mu la kat benn baat benn baat ba nga jëlee alif laam laam kon nag kenn ku ci nekk dafa dikk présenté wu waaye boo leen kenn rek du ñaar du ñett kon nag waaxidu fal xaqiqatu xaqiqa xaqiqatun waaxidatun waaw gaa bunt bii ñu lii ñu wax leen ñun foo dem moom fay fekk soo ko nangut soo ko traversé fa ngaa jàll mun te nekk xaqiqa du ñaari xaq de fal xaqiqatu xaqiqatun waahidatu déedéet benn xaq rek ma fi nekk xam nga kon bañ dikkee ne Muhammad yaag Ahmad yaag xilaaf déedéet aar ya rek benn kenn fi nekk rek fal xaqiqatu xaqiqatuwaay billaahi waa mbaa gaa yi dégg ma ne <laughs> ma de bëgg naa ñu dégg ma kon nag fa taadudu li mu gën siyaadatun euh, dolleku la euh, mooy umuru itaadi bi maanaa dolli lay dolli ko ne mbiram dolle mbaram benoo ba foofa na nga dégg nag al isaaraat li ma la wax nag ay isaaraat la déggal li ma la joxoñal nag kon nag buñ dikkee li mu naan ahadi yaak muhammad yaak amri yaak xilaafa ak siro nga xam ne kenn dafa nekk rek falaa xatun kon nag li mu googu ah siyaadatu umur itaadi dafa yokk rek mbiram bennoo ko foofu na nga dégg al isaaraatu wafas na nga sàmm nag al ibaaraatu ibaaraat li ma lay tekki maa maa ngi la indil indil naa la ay junji ak i tekki damaa bëgg nga dégg nag wafaqanaa yal na ma ñu fa sens alaw yàlla li maa yuy bu lam bëgg woo yardaa ak lam gërëm yal na yal nañ ko yàlla may ah, kon nag waa daawaa yal na saafara bi mën yi ci xéwalam la alxulooba yi nga xamante ni mooy xol ya almarda yu feebar yi yal na yàlla saafara ci xéwalam nga suñ xoli feebar yi wadum naa ñu sax kamaarum naa nañ sàkku ci fii bi wasalaam euh, kon ay salaam ah, kon ay salaam damay arrêté wasalaam Ah, kon nag awalan wa axiran maa ngi wax asalaam moom laa leen déparale moom laa def ci awal ci salaam ci awal ak aqiru muhammad misri yowmal xamis alhaadi asra min rabbina nubuwati mooy gamo xaama xum ci atam eh, dégg maam eh, mille eh, maanaa junne ak Mm, ak téeméer ak xawma ñeent fukk wala ëpp na ko xawma xum ah inna fataana laka fatan mubinan kon loolu la caar boobu mooy mille trois cent soixante treize ci laa def lii moom lettre bii lettre bu am solo bii lettre ma ta déglu bii ci laa ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ceey ceey